jafe-jafe yi nga moom la ñu nemmeeku ci secteur bi waaye nag moom président Diomaye fay nag ma ngay sàkk ñu amal ab audit ci nu mu gën a gaawee jëmale ko ci le këru liggéeyukaay Le Soleil yëglekaay ne ko politique bu yees bi nga xam ne rek moom lañ bëgg a doxal jëmale ko ci secteur ferroviaire bu Sénégal am na ay yoo xam ne rek njiitu réew mi bëgg na ko cee amal ma ngay joxe orientation jëmale ko ci élimaanu jëwriñam du Ousmane Sonko ginnaaw jéego yi nga xam ne rek boobaak léegi gouvernement bu Sénégal mi ngi koy amal ngir jooyantiwaat jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku ci réewu Sénégal njiitu réew mi fi mu toll nii nag bëgg naa suqaliwaat lépp lu jëm ci wàllu développement beeg dem beeg dikk bi ci secteur bi nga xam ne rek moo soxal wàllu dem ak dikk bu raay bi lu toll ci 83 projet de loi 294 projet yoo xam ne rek ci ay décret la 110 projet yoo xam ne rek dañu koo arrêté loolee lépp nag bokk na ci agenda législatif yi nga xam ne rek moom premier ministre mu ngi koy annoncé l'info yëglekaay dellu soit ci politique yu yees nga xam ne rek moom lañ bëgg indi ci secteur ferroviaire bu Sénégal yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye ma ngay soobu ci grand chantier mii li mu bëgg rek mooy wàllu dem bi ak dikk bi ci kaw raay bi gën a ñoŋ bu ko defee nag askan wi gis ci seen bopp bay mën jëfandikoo lii di otoraay beeg seen ay bagage te ci noonee nag moom njiitu réew mi ma ngay xam ne ni daan ci taxawal ab comité stratégique ferroviaire boo xam ne rek ci njiitalu premier ministre lay doon ànd ceeg ay cadre yoo xam ne rek daañu mën a saytu bu baax a baax doxalin bi jëm ci politique yi nga xam ne rek moo soxal wotoraay bi fii ci réewu Sénégal buñ ca noppee nag amal ay investissement yoo xam ne rek daañu ko jëmale ci wàll wi yokk ay yoon ak ci biir réewu Sénégal yéen yéenekaay beneen di Le Témoin xëy daal di àddu jëmale nag ci mission audit yi nga xam ne rek daañu ko amal jëmale ko ci koppar yi nga xam ne rek moom lañu ñu luubal fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne IGE jamono ji nag teg na gët juróom-ñaar fukki ministère ak i agence yoo xam ne rek dañu ko war a càmbar yéenekaay bi ne dina ci bokk ca Air Sénégal ca TER ak waa Fonds d'appui Coupe du monde bu Qatar 2022 building administratif ak lu jëm ci aide à la presse waa APIX itam nag ñoom ñëpp teg nañu leen gët jamono ji tey ji L'Observateur dafa xëy def taxaw seetlu nga xam ne rek def nañ ko ci bopp Sénégal ak léegi yéenekaay bi xëy bind ci xëddam bu njëkk jomaay sans débat ne lum ci mënti doon daal ay retard nemmeeku nañ ko ci doxalinu projet bi acteurs yi nga xam ne rek ñoom ñoo yëngu ci ay secteurs yu wuute kenn ku ca nekk yaa ngay joxe gis-gis bi nga am ci doxalinu président jomaay fay ginnaaw bi ñu ko tabbee ci bopp réew meeg léegi waaye nag li ñu jàpp bokk na ci lépp lu ñu doon dig askan wi ba nëgëni si nag ci ay déclaration rek lay yem waral ba tribune yëglekaay moom di samp ab laaj ne téeméeri fan yi nga xam ne rek def nañ ko ci bopp Sénégal ndax déet lu mu ci mënti doon yër leen boobee yëglekaay vox populi la ñuy àddu jëmale ngir moytandiku nag Sénégal tàbbiwaat ci ab crise institutionnelle tax na ba ay député yu wàllu nag jamono ji déposé nañu ab proposition de loi nag boo xam ne rek moo fas yéene càmbar lu jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale député bii di Nafissatou Diallo ak Ibrahima Diop Serigne Abo Mbacké Thiam ñoom ñooñee nag li ñu bëgg jamono ji mooy ñu daal di amal ab mise à jour boo xam ne rek dafa jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale ngir mu delloosiwaat jëwriñ bu Sénégal Sud Quotidien ne modification yi nga xam ne rek moo jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale waa parti démocratique sénégalais jamono ji nag ña ngay doxalee doxalinu sapeur pompier des ba tey ci wàllu politique ak ancien maire bu Guédiawaye Alioune Sall jugee na APR yéenekaay bi ne ginnaaw Antou Samba Alioune Sall war na ginnaaw waa APR moom mi fi nekkoon maire bu Guédiawaye jamono ji nag ma ngay amal ay waxtaan ci digganteem ak Amadou ca Amadou Ba enquête yëglekaay addu jëmale tey ji nag ci génn àdduna bu am d'affaire bii di Baba Diaw yéenekaay bi ne ñii di industrie yi ñàkk nañ seenub capitaine ak dimension intellectuelle bi nga xam ne rek moo nekkoon ci Baba Diaw milliardaire boobee nga xam ne rek dafa effacé wu woon moom mi fi nekkoon njiital itog nag doon koo xam ne rek ràññee woon nañu taxawaayam ci wàllum hydrocarbure ñu ràññee woon taxawaayam ci jamonoy Senghor nekkoon xaritu Abdou Diouf rawatina cër bu am doole bi nga xam ne rek maître Abdoulaye Wade joxoon na ko ko doonoon quotidien yëglekaay fellu ko ne fondateur bu itok di Baba Diaw nag moom wuy ji na boromam yéenekaay bi ma ngay dellu suwaat di ñu xamale kookee di Baba Diaw addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak stade yëglekaay CAN 2025 tirage au bi nag alxames tey jii la koy amal yéenekaay bi di samp laaj ni ban adversaire moom la Sénégal nar a am lu jëm ci Copa América bi ak quart de finale yi tey jii nag choc dina am ci diggante Argentine ak Équateur lamb la mi nga xam ne rek jël na ay yi nga koy faral di guddee yéenekaay bi ne boo moytuwulee forfait moo ca nar a tukkee ak ñu dagg sab xaalis jëm ci sa wàllu reliquat jeexalee ko ak baccalauréat atum 2024 ginnaaw 64 candidats yi nga xam ne rek dañ leen a dàqoon foofee ca Kaolack yéenekaay bi ne am na juróom yoo xam ne rek démb dàq nañu leen foofee ca diwaan bu Kolda ndax jëfandikoo téléphone portable mbokk yi lii gënoon a fas yéeglekaay yi jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal a 3 ñu leen doon may seen revue